Serigne Mor Diop ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. Ah, ñu ngi leen di fay di leen ñaanal jàmm di leen ziare ci tabaski bi ñu jógee. Mm-hmm. di ziare auditeurs Rewmi may fàttali kon yow taskatu xibaar nga nekk it consultant ñu ràññee la lool ci wàllub euh, tàggat yaram bokk na ci sax lamb alors euh, lamb ñu waxtaanee ko ci réew Sénégal ak jamonoy mbas mi ñu toll loolu ban euh, dajoo wala bokk ban tolluwaay nga mën a nattee li nga xamante ne mooy impact maanaam lorange yu tukkee ci mbas mi jëm ci lambu Sénégal. waaw xam nga mbas mi yàlla wàcce dafa du du rek la gàllankoor bépp yëngu-yëngu boo xam ne doomu aadama mu ngi ko daan yëngu euh, mbas mi gàllankoor na ko rawatina euh, sport yëpp xeetu pow tàggat yaram yëpp ñoo ko yëg gis nga jamono boo xam ne lépp a ne tekk benn yëngootul biñ demee ba mu yàgg ci la am yu tàmbale di yënguwaat lu mel ni football ci championnat Europe euh, lu mel ni basket ci bu Amérique làmb loolu gàllankooroon na ko ba tax saison bi daanaka ci diggantel ci digg saison ba lañ toll rek mbas mi ñëw ñu arrêté lépp di dem di dem di dem ba far diir bi nga xam ne ci la saison lamb daan tëj muy 31 juillet egsi ñu wut ñu tëj ñu yaakaar nag ne xëy na yàlla dinañu dimbale ba même bu fi mbas mi jógul Euh, ñi yor làmb ji dinañ seet ay pexe yu tax ñu mën a ubbiwaat làmb ji ni yeneen sport yi ubbee waaye même Sénégal xamagul ndax football bi dina ubbi ci jamono ba mu waroon a xamuñ ndax basket bi dina ubbi ci jamono ba mu waroon a làmb ji foofu la toll rek di xaar tey ñaan yàlla mbas mi jóge fi. Mhm. waaw ah, gis nañu tamit ni kon làmb ji bëri na lool ay licenciés ñu xayma leen ci junni loolu kon ñàkkum xëy dëgg la ci saison bi nga xamante ne dara doxul Euh, euh, ba xam amoo ci tiitaange ci ëllëgu ndaw ñooñu. ah waaw xëy na li ma la wax bu fekkee ne saison yi ubbi seen ubbi te jot na. njiit yi dinañ seet pexe yoo xam ne wax dëgg yàlla xale yooyu dootuñ toog ñàkk liggéey ndax ni nga ko waxee ñàkkum xëy la ci ñoom. métti na lool lool lool te xam nga mbër ci gën a jafe ndax mbër dafa am lu koy dundal mbër dafa laaj entretien lekk bu baax entraîné bu baax euh, nelaw yu doy te loolu boo yorul dara moom doo ko mën wax dëgg yàlla foog nga daw di test si mbër yu ci bëri ay soutien de famille lañu. Mhm. kon wax dëgg yàlla lu métti la ci ñoom moo tax ñuy am njortul rafet ne bu saison wareew bi kilifa yi dinañu góorgóorlu ba euh, mën a may mbër yi ñu mën a bëreewaat mais suñu xel suñ njort rafet na ci ndax gis nañ ne donte saison bi arrêté na. ba egg ci tëjteem. Uh-huh. teewul promoteurs yi ñu ngi dox ay combat di négocier di jéem a taxawal ay combat yoo xam ne bu bu ñu nee kat bunt yi ubbi na euh, dal di tàmbali te wax dëgg yàlla combat yi ñu gis ñu taxawal ko tax nañu am njort lu rafet. Uh-huh. dikkaatub Gaston Mbengue ak euh, Luc Nicolaï mi ñu bàyyi ban njeexintal la ci mën a am. ah njeexintal li muy am mooy bi bi bi bi corona bi takkarnaasee ba lépp taxaw. Gaston Mbengue am na fi ku taxaw ne man dama bëgg a dimbale euh, président Macky Sall dimbale waale askan wi ci relance économique ci biir làmb mu taxawal ay combat ah, yéenem ñeenti combat la bëggoon taxawal yàlla dogalul mu antu mais taxawal na ñaar Luc Nicolaï avant gàllankoor gi dal ko utoon na combat boo xam ne Sénégal gëpp moom lañ bëggoon muy diggante Ama Baldé ak Modou Lô hmm. euh, yàlla indi nattu tey bi yàlla teggee nattu bi ci moom Euh, li ci li ci des mooy eggale komba boobu ak ak wut yeneen ndax xam nga lu tam ku ambitieux la. moo Gaston kenn mënta wax làmb teew tuddoo leen ñoom ñaar seen ñàkk a teew ci làmb ji di bokk na ci liy gàllankoor làmb kon buñ jël see ñoom ñaar ñun wax dëgg yàlla suñu njort njort rafet na. Hmm. balaa ñuy teew ñu nemmee ko ni kon yëf yi méttoon na ngir ñu gis combat yu mag yi ndax promoteurs yi ñu bëri dañu rocceeku woon sponsor yi daw ah, ah, làmb ji nekkoon ci coow lu bëri ak arbitre yi tamit ko noonu ba taxoon ñu bëri doon sàkku ci njiit la muy kon docteur Alioune Sarr mu daal di tekki ndombal tànkom ba xam yow àndoon nga ci boobu lay ñaxtu. Euh, man ànduma ci xeetu wax ju demee noonu ndax euh, est-ce que docteur Alioune moo dàq euh, moo dàq sponsor yi déedéet mbër yi ñoo dàq sponsor yi parce que bu fekkee ne sponsor ñëw na dugal ay millions wala ay milliards ci làmb euh, te sa image bu bu rafetul rek la ñuy wone di laajit cachet yoo xam ne promoteur yi attantuñ ko promoteur bu ci dugg daanu lool promoteur dinañ daw ah. waaye bu fekkoon ne mbër yi raisonnable nañ ci cachet yi parce que euh, bu exception amee ci lamb da koy xam ah. mais bu gàllankoor amee it da koy xam Mm-hmm. promoteur ba mënoon a fay cent bu demee ba na la man yéene naa laa tëgg waaye amatuma cent millions soixante dix millions laa am war nga am kóllëre boo nangoo sëgg bëreel ko ci loolu mu a fay ndax la nga la daan fay bu njëkk. Mm-hmm. ñaareel bi euh, lamb bu egsee fii tey yàlla ak docteur Alioune Sarr ak ñi la ak seenu mat ak seenu fayda ak it décision yi baax yu ñu ñun ñu fekkee démb lambi démb. Mm. xam nañ ne avant docteur Alioune Sarr euh, yor làmb ji mbër musula fayu lu weesu six millions wulu fa egg sax mosuñ ko fee maa ngi fàttaliku ne comme cachet bi fi gënoon rëy ñetti million la woon mu nekkoon combat Moustapha Guèye ak Mor Fadam jaraaf tëggoon ko ba ñu demee bay bëgg a bëre Moustapha Guèye am accident bu tax mënatul a bëre ñu dàq komba ba dolli ñaari mbëri ku ne un million pour nga mën a waajaat muy quatre million avant Alioune Sarr ñëw foofu la cachet làmb yemoon tey bi mu ñëwee assainir làmb ji maanaam defaraat ko yenn looxoor yi ci amoon ci biir mu dindi ko fi caay-caay yi ci am mu dindi ko ci lañ dem ba mbër mën a feeku ba cent cinquante millions. Mhm. Euh, daan nañ fi gis promoteur euh, manager bu daaw avance ab mbërëm gis nañ ko ba ba sonn. Mhm. loolu Alioune Sarr ko fi dindi mbër daana jël combat ba pare tukki ba ko fi promoteur ba perte avance yooyu yëpp gis nañ ko fi bi ñëw licence amul ci lamb ji. écurie yi fi amoon kayit benn la ma ñaar écurie séeréer écurie waa euh, waalo ak écurie Fass ñoom ñett fi amoon kayit dëgg yu récépissé. Mhm. kon li indi ci làmb li ko defaraate moo tax làmb egg si fii kon tant que moom neewul mënatuma wala ministre bi ne ko soxlaatuma la man gisuma njëriñ muy dem. alors beneen débat ci làmb ji muy kon euh, lii nga xamante ne mooy at yu ñuy plafonné ngir kon mbër yi ñu yemale ko ci ñeent fukk ak juróom ku ko weesu nga war a dem à la retraite loolu bëri na ñu nekk ci géew gi di ko xeex ak sax observateurs yi ndax ànd nga yow ngir ñu yokk limitation d'âge boobu. xam nga dinaa euh, la xamal ne bi nga xamee ne ministère des sports woote na journée d'étude maanaam ay ñaari fan yoo xam ne dañ koy toog di waxtaane mbiru làmb ji ci arène national ba la woon man bokkoon naa ci ñuy jëloon ñu nekk personne ressource ci biir commission ba ma bokkoon waxoon naa ne nañu xoolaat at yi ndax dama ko mëngaleek lu mel ni box ku mel ni George Foreman yaakaar naa box na ba juróom fukki at ak juróom-ñett waaye nag wax dëgg yàlla xalaat boobu dellu naa ci ginnaaw hmm. ndax xam nga ne lu at yi yokku kàttanu gën a wàññeeku sa réflexe sax de wàññeeku boo bàyyee nag yenn at yi nit am ko di bëreek ndaw loo xam ne mu ngi toll ci digg ndawam musiba mën na ci am rawat na làmb ji nga xam ne euh, doo sol gan terewuñ dóor fenn fudul fudul fudul euh, digg ginnaaw wala awra foofu rek lañ tere maanaam même bi ginnaaw mën nañ ci dóor doq la ñu ci rek fa dóor mm. feneen foo dóor baax na loolu du lu wóor dara dara te seetlu naa ne am na yenn mbër yoo xam ne bàyyi nañ làmb ba ñuy bàyyi mënatuñu dara dara dara am na nag ñoo xam ne seen kattan may na leen ñu mën a dem ba juróom fukki at fu ñu la téye doo fa jóg waaye loolu euh, du ñëpp la ñoo ko man nag fi ma àndul ci CNG mooy ñu yemale ne fukki at ak juróom-ñett ba ñeent fukki ak juróom ñeent fukki at ak juróom moom wax dëgg yàlla doy na ci bëre waaye bëre bi mënoon nañoo wàcc at yi ba ci juróom-ñetti at ndax bu boroom juróom-ñetti at du dem defi bëre door waaye dina def lutte gréco-romaine hmm. mu ne dem ay championnat d'Afrique championnat du monde lutte africaine bi ñuy defit war nga xam ne amul dóor muy làmb làmb ju amul dóor ñu mën nañ ko wooyee mbapat ñun waaye lutte africaine lañ koy wooyee mën nañ ci dugal gune yi li ko tàmbalee juróom-ñetti at ba ci fukki at ak ñet ñett hmm. bu boobaa ñu mën a am ay cadet minime junior gën a mën a développer làmb ji. Hmm. waaye daal wax dëgg yàlla yaakaar naa ne kuy euh, def ab liggéey bu mel ni làmb ba egg ñeent fukki at ak war ngaa mën a tekki sa genn te jublu ci yeneen liggéey. lamb ni ko waxee te tolloon nañu ay jamono yi nga xamante ne euh, ñu ngi doon fay koppar gu bëri lu mot cent cinquante millions ak lu ko ëpp sponsor yi nekk fii public bi naka noonu waaye léegi mu mel ni fii wuute na lool boo doon indi ay euh, solution ngir saafara bi lay jafe-jafe lan nga ñuy wax. man de solution bi ma ci njëkk a gis mooy. jéem a delloo cachet yi ci jamono ba nga xam ne gisuñu opérateur téléphonique yi. ndax opérateur téléphone yi kat loolu mën di dégg ñoo fi indi cachet yu rëy yooyu bu ñu delloo suñu xel mbari yi delloo seen xel xoolaat cachet yi euh, mbër daana bëree ñett ba ñeent combat ci at mi dajale xaalis bu bëri mën cee faj soxla man gis naa mbër yoo xam ne tabax na ñaari këru étage te te euh, xëy na ci seen njeexitu carrière lañ soog a mus a am cachet bu mat trente millions waaye nangoo bëree combat yu bari ci at mi moo lay may dajale xaalis waaye léegi mbër mbër mbër yu mag yi am benn combat at mi doy na la parce que lañ lay tuur ci xaalis euh, dina tax dootoo soxla dara euh, loolu nag pour làmb ji mën a dellu fa mu ne woon mën a indiwaat ay sponsor faw ñu nangoo wàcce cachet yi mbër yi yi am tur te nga xam ne mën nañoo indi mbooloo ci astat euh, bëreewaat bu ñu bëreewaatee tuuti rek ba ba ba public bi ñëwaat sponsor yi ñëwaat parce que sponsor li ko intéressé mooy public ak it lu bañ a ñaawal image am. bu ñu bàyyee xeex bi ci làmb ji. Euh, te wàññi cachet yu mbër yu mag yi bëri stade yu fees incha allahu pour euh, euh, sponsor yi ñu ñëwaat. gannaaw làmb ndax kon yemoo ca taskatu xibaar nga lu jëm ci wàllu football ak dogal bi comité exécutif fédération jël ne kon dañu fi yemale saison bi du ñu jox sax raaya du am tamit monté muy ñu yéeg ci division yu mag yi ak ñu war a wàcc. loolu ba xam yéen na maanaam ak li ñu jàpp ni duñu joxe raaya ba pare yabal ay équipe ngir teewal leen Afrique. waaw xam nga ñun eh, làmb daa siiw ba boo ci eh, fësee rek ñu ne spécialiste làmb nga waaye ñun eh, bi ñuy tàmbali soleil cyclisme lañ gënoon a topp uh-huh. te ragal naa ne ci sport yi ma xam yëpp cyclisme laa ci gën xam ak ak it arts martiaux yi nga xam ne pratiqué naa sport boo ci nekkee dangay ngay euh, polyvalent sport boo dem xam ko. Ah. loolu mooy journaliste sportif. waaye football bi bu ñu xoolee ci réew yi nga xam ne ñoo ñu gën a ci sport ci football rawatina fu mel ni France fu mel ni Angleterre fu mel ni eh, eh, Espagne Italie ñenn ñi yeggal nañ seen championnat ñi ko yeggalewul fañ ko yemale joxe nañ euh, raaya yi. Mm-hmm. ku mel Paris Saint-Germain kenn mënul diingat ne. li ñu champion de France nga euh, mérite na ko kon fii Sénégal tam am na équipe boo xam ne dafa rawoon ay moromam yëpp ba li xale yi wax naan raw na ba sànni karawaas bi <laughs> kooku boo demee ba ne mënatumaa dem damay def lu ñuy wax play off ak play down maanaam tànn ay équipe yo wara a daje seen biir ku ci raw jël championnat tànn ay équipe yu war daje seen biir ku ci ku ci euh, féete ca suuf wàcc équipe yi fo ne loolu dina dem di ko waajal nga xëy na defatuma ko dakal naa lépp waaye raaya du am ndam du am waaye teewul dinaa yebal tamit Tëngéej euh, FC mu dem football yi ci Coupe d'Afrique des clubs champions maanaam li ñuy wax Ligue des champions mais kooku kooku ja jaaduwul kooku nga tànn ne ko demal football yi Ligue des champions kon nangu nga ne mooy champion foofu wax dëgg yàlla man ànduma ci fédération bi waroon nañoo joxe ay raaya. Ah. léegi nag wàcc beeg yéeg bi xëy na foofu mooy am jafe-jafe. loolu yëpp bu ñu waxtaanoon seen biir war nañoo mën wax ne dañuy maintenir statu quo maanaam fi ñu toll dañ koy téye kenn du yéeg kenn du wàcc waaye lu bon bon xam nañ ne diw mooy champion première division diw mooy champion deuxième division ñu gis ni tey tamit ci mbas mi euh, ñu bëri euh, ci dirigeant club yooyu ci jafe-jafe dëgg la ñu nekk ngir kon euh, fay seeni i joueur fay seen i employé ñenn sax di ci ñaxtu wu yàggul dara Linguère de Saint-Louis ñuy sàkku tamit ba tey ndimbal ci autorité muy fédération ak ba xam da nga jàpp ni yoon la dëgg wala mënta ñàkk boobu la ndimbal ndimbal moom du force waaye ku jaaxle sañ ngaa dem sa kilifa ñaan ko ndimbal ndax bu fekkee ne dañu wax ne championnat professionnel moo am Sénégal euh, joueurs yi ay employé lañ maanaam ay liggéeykat lañ yoo xam ne équipe yi ñoo leen jël di leen liggéeyloo di leen fay waaye équipe yooyu championnat professionnel bi ñu nekk dafa am lu ñuy wax cahier des charges maanaam lu euh, yoon woo xam ne ñi ñi ñi nànk football bi tëral nañ ko wax ne ku bëgg a bokk championnat bi nii ngay tëddee boo ko motalee di nga bokk cahier de charges boobu bu fekkoon ne ñi bokk ci championnat bi yëpp respecté nañ ko dinañ am lu ñu mën a fayee seen salaire loolu nag buñ ko deful parce que euh, déjà lu mel ni sponsor équipe professionnelle yi yëpp am nañ ko euh, championnat européen yi gisoo ci kenn ku am problème mu fay salaire te xanaa dem nañ ba nangoo wàññi salaire loolu yëpp xalaat la bu ñu xalaatoon waxtaan aux joueurs yi na léegi am nañ syndicat xam na leen ne kat dara dugatul prime de match amul a am mënatuñ koo fay ndax fëbalatu leen lu bon bon ñu fexe salaire yi ñu fay ko buñ ko mënul ñu xaaj ko wàññi ko di ko fay hmm. waaye euh, gis nga euh, euh, gouvernement Sénégal defoon na ko bi mbas mi tàmbalee président Macky Sall ne ñaan na employeur yëpp kenn dàq say employé hmm. lu bon bon ñi ngay wàññi defal leen ni da toog te nga leen fay téeméer bu ne juróom-ñaar fukk ya hmm. loolu tam xalaat la mais comme équipe Sénégal yi kenn tënku ci ci charte yu leer dinañ am jafe-jafe du ñu tey fay salaire te salaire yi obligatoire la. Mm. loolu nag buñ ko mënul. te xam nañ ne fédération lu bon bon am na lu mu denc ci xaalis wax dëgg yàlla jaalu na mu dimbale njabootam balaa tam kër yaa tas tas. Mm. ndax li nga wax li dal Euh, mën naa tas seen kër bala loolu di am nag fédération bi leen jaboote war na mën a domp ci la mu denc ñamal ci club bu nekk nga mën a fay say salaire. sëñ Mour Diop ñu ngi lay gërëm bu baax. Euh, maa ngi leen di gërëm may di gërëm auditeurs Rewmi FM yëpp ak techniciens yeeg journalistes yi fi nekk yëpp di la gërëm yow. di ziare tam seen président Mbagit jóg nga xam ne sama xarit la sama sama kóllëre la euh, jot nañoo am fu ñu jaar fu bari maag moom di koy di leen ñaanal jàmm te wax bonne continuation jërëjëf may fàttali kon ab taskatu xibaar nga consultant tamit ci wàllu tàggat yaram